yëpp Boucar Ndour maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. waaw Lamine Seck maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar ah, le saoudien maa lay ziar bu baax a baax a baax a baax di nee di nuyu Baye Alé Ndiaye vraiment di ko féliciter di ko ndokkal aussi si bés bi di ko gën a encourager waat aussi mm-hmm. ah, bu baax a baax a baax di nuyu famille yëpp yëpp yëpp di nuyu père Pala Madiama moom moom sama père la ni ma ko waxee rek dañuy partager lu dañuy partager lu bëri vraiment mu nekk jantal père waaye di nuyu père Mansour. Mhm. père Mansour ma jàmm ñoo ngi koy nuyu moom tam di ko ziar bu baax a baax a ko mhm. baax mhm. ba pare mën ko nettali. mu am a a ñoom doyen Dembélé Cheikh Iba ah, euh, gaañ bi borom Pikine petit Jamaïcain di nuyu Ibrahima Faye Beuz aussi di ko ziar bu baax. moom tam di ko félicité waat. di ko encouragé waat aussi mu gën a góorgóorlu. te xam ne affaire moom yaa ma gën a xam yombul waaw mais di nuyu waat Eric di nuyu daal képp ku ñuy seetaan. vraiment ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax fu waay mën na rek ñu ngi lay ziare. a <laughs> honneur aux dames. bilaay paree suñu ñaari papa yi da nga jox jigéen ñi. baal ma wax nga dëgg. <laughs> mais bon waaw ah. euh, je pardonne. Euh, maa ngi nuyu sama ñaari papa yi père Mansour ak père Par di nuyu euh, ñi ma bokk plateau yi samay confrères samay mag samay rakk ak ñi nekk si côté bi ñi nga xam ne ñoom ñoo àndal Baye di nuyu sama xarit jamaïcain. Mm-hmm. di nuyu di nuyu aussi ki nga xam ni mooy Baye Ndiaye gis nañu gisee lool ah. di ko féliciter aussi si si li nga xam moom la noonu meilleur promoteur. ñu euh, yaakaar ni que euh, lii ça va te permettre nga dana redoubler d'effort mm. ah, ah c'est vrai que coow li bëri na trop mais comme on dit rek euh, qui choisit élimine ñu yaakaar ni waxtaan bi suñu si jugee daañu si dugg ak bisimilah rahmaani rahiim mm. génn seeg alhamdulilah rabbi alamin mm. te lépp rek ñu teg ko si cadre fair play comme on dit comme sport la ñu mm-hmm. macha allah loolu am na solo Boucar Ndour keroog dalal nañ fi ki nga xamante ni moom mooy Modou gannaaw ba nga xamante ni waxtaanee nañ ko ak ñi nga xamante ne ay acteurs lañu ci wàllu làmb waxtaan ko ak ñi nga xamante ne ñooy amateurs yi ba ñëpp wala boog li ëpp ci ñoom jàpp ni moom mooy meilleur lutteur léegi nag am na ñoo xamante ne def nañ seeni i sortie jàpp ni moom du meilleur lutteur donte ku ci nekk am nga ci droit critique yooyu noonu yow ban gis-gis nga ci am. waaw xam nga la men unanimité moom li ñu wax à chaque fois rek kenn amu ko te tey malheureusement maandu dafa xaw a manqué Sénégal. te yàlla dafa ne lakum diinukum wala diin tey war nga mën a nekk si beneen diine sax nit ne si diineem sax nga respectel ko li nga xamante ne moo di foi am mm-hmm. mais malheureusement loolu amul Sénégal mm-hmm. tey père part day préféré sol grand boobu mm-hmm. nga ñëw ne ko lu tax nga sol grand boobu affaire dafa tàng war woon sol grand boobu critiqué ko te malheureusement warul demee noonu tey bu fekkee ne football la tey gars yi bu ñu def voté tey journaliste sportif tey Sénégal tey bu ñuy voté ay ay ay meilleurs joueurs affaire yoon tey am na journaliste sénégalais buy représenté tout tout le peuple wala tous les journalistes sénégalais moom mooy moom foofu noonu tey mm-hmm. kon yaakaar naa ne tey Sénégal aussi euh, assemblée moom moo lay représenté assemblée tey département bu ne day am député bu ko bu kon tey booy def choix wu meilleur peut-être nga dem si benn structure nga jël fa benn benn journaliste mm-hmm. nga dem benn structure nga jël fa peut-être benn tey dañuy voté votel diw tey même Sénégal sax bi ñuy voté tey am nañu voté loolu Diomaye te pourtant tey Diomaye moo nekk président mm-hmm. ba tey tey tey am na ñoo xamante ni nangu lu ñu Diomaye mm-hmm. légitimité mm-hmm. te pourtant moom la yàlla dogal ne moom mooy le président de la République kon foog aussi ñu koy xamee noonu man nag li may à chaque fois rek concurrence day loyale man aussi bëgguma souvent sax di di tergiverser yenn yi. concurrence sax pour ñu suuf Euh, c' est juste rek pour pour pour gën a innover làmb. Mhm. c' est pour pour pour gën a motiver Baye Ndiaye tey boo tànnee benn Baye Ndiaye def ko meilleur lutteur tey pourtant tey Ouzin Production tëgg na 14 journée. Mhm. mais Baye Ndiaye li mu def en matière de journée en matière de événementiel ak yeneen yeneen li mu si fere tey. Mhm. munoo jël Ouzin bu ko def meilleur lutteur meilleur promoteur par rapport ak Baye Ndiaye. kon tey euh, dimension yi moo dul nekk benn. mais malheureusement euh, euh, euh, comme ni ma ko mën a citer nommément muy Modou Mbaye mm. man li mu waxee sincèrement rafetlu ma ko mm. am nañu jàpp ne day clash ak yu demee mais pour man tey li ñu naan tout abus est néfaste mm-hmm. te lépp lu abusé rek bu yàggatee ñi dañuy gis seen mm-hmm. gis nañ ne tey vraiment mu ngi au chevet de di critiquer di pour man war na mën a ñàkk mm-hmm. te Lutte ñëw ci làmb am tous personnel bu mu andi am apport bu mu andi ci làmb mu nekk projet boo xamante ne aussi ñun dañ ko gëm man li may wax à chaque fois rek man bi may ñëw Lutte TV boobu TFM laa jógee jóge fa stage. jàng sama formation am bac en 2015 jàng journalisme et communication. Mhm. am sama licence. na dem na RTS bi waaw dem na ci ay waxam dem na ba may woo pour yóbbu ma seen antenne bi nekk Fatick boobu j'étais à à peu près deux mois de mes examens mënu ma woon dem. j'avais un oncle xamante ne tey moo nekkoon le DAGE de la présidence muy Abdoulaye Ndour nekk le directeur de l'administration générale de l'équipement. kon mën naa ne man tey suñu famille jàng lañ xam sama maam bi jur sama yaay directeur d'école la woon Foundiougne te boo demee li wër jaxaaw sin tey trois enseignants ñi fa njëkk a nekk enseignant sama maam bi jur sama yaay si la bokk mais am na yoo xamante ne aussi bu la koy wax di tudd sa tur sincèrement du neex ci xol te Modou Mbaye man woo naa ko trois fois yoo xamante ne pour inviter ko day décliner juste pour xam nga tey journalisme tey impartialité loo xamante ni tey boo jàngee sa métier xam da ngay fexe gars yi souvent dañuy attaqué di la di la jam ay yoo xamante ne du neex ci xol. Mm-hmm. man nag kenn mosuma gis fii demee noonu quoi mais sincèrement neexul ci xol. Mm-hmm. te Modou Mbaye man dama ko jàpp frère. souvent gars yi dañ daan classé man heure bu ma ko fekk stade nuyu naa ko jox ko ñaari loxo. Mm-hmm. Pape Modou heure ma ko fekk stade nuyu naa ko jox ko ñaari loxo. te respect boobu noonu tey pour man tey war nañu ko joxaat. certes nag tey meilleur lutteur bi ñu jox tey Modou Lo mën nga bañ a d'accord. waaw ne diw mooy meilleur lutteur ah. mais il faut défendre ses idées par des arguments mm-hmm. mais malheureusement su fekkee ne da sànni xeer di sànni xeer te Lutte TV pour man ay gor ne fi mm-hmm. ay ay ay doomi jàmbur ne fi di liggéey di di di di daan seen doole man boo seetloo c'est rare nit gis ma ci yenn face à face yi parce que dama xam sama bopp man dama am yoo xamante man mënuma ko muñ mm-hmm. te li may wax à chaque fois rek malheureusement làmb rek ngay ñëw gis koo xamante ne tey leer na la ne kii yaa ko gën ndey gën ko baay gën ko juddu gën ko xeet gën ko yariñ gën ko éducation gën ko lépp mu lay minimiser. si wala mu lay jaay affaire. Mm-hmm. te jaru ko fii àdduna la rek. li may wax chaque jour làmb. waaw làmb ci la ku la warul la yeb ci làmb lay jaar ko yeb la voilà si lay jaar mm-hmm. pour yeb la. sam benn xarit la papaam dinaa ne bu mu xamee ne nit dina faatu la noppalu ci àdduna comme noo mel dee noo tollu dee loo am dee. nee na moom ci la noppalu si àdduna mhm. kon nañuy rafetal quoi moo gën ci ay waxam tamit beneen boo xamante ne jàpp naa ko ci dem na ba ni waa Lutte TV mhm. dañu dañ dañu dañu yabaatee mhm. dañu ragal ah? ay ay fan su Modou Lo xam nga xoola loolu xoola wax boobu li ci gën a garaaw mooy mi ngi la mi ngi mi ngi mi ngi ñuy jël. di ñu mu ngi jël yeneen yeneen mbër yi. di leen door ci kaw. di leen dóor ci kaw waaw. pourtant ñun mosu ñu wutal mbër gàllaaj. mosu la am ñu wutal mbër gàllaaj. mbër gàllaaj am am combat ñu jox la bu dee. li ma dama ni chaque jour. li ñu gars yi di wax li ñu xam wala ñu koy dégg di ko wax. dañuy xam lu ko raw. loo xamante ne tey bu ñu ko waxoon. nit du ko dindi te pourtant dañu naan patt ak dañ naan patt ak moom loo nit xam fii di ko wax. mën na am sax lu nit di ko wax te xamu ko. mu dégg ko wala mu créé ko. mais ñun dañuy xam loo xamante ne. lu mënoon a tas penc la te duñ ko wax. képp kuy mbokkam lu mhm. wala ngay xaritam mhm. wala ngay ànd war nga ko wax ak moom mhm. mu bàyyi acharné bu muy def ci kaw nit yi vraiment am na loo xamante ni c'est dommage daal jekkul rafetul am na loo xam def di xaw a reetaan pour ni nax nit ñi mais ñun ñi nga xamante ne tey ñun nga koy wax xam nañ ni li ngay wax dëgg la ci yow xam nañ ni yow yéene bu rafet mosoo ko am ci Lutte TV ñi ay mbokkam ñoom ñoo war a jiitu tey ci ne ko li ngay def du ne mhm. parce que ñun même suñu suñu suñuy papa yu ñu jur sax suñuy papa mhm. wala suñuy yaay mhm. bu ñu leen gisoon ñuy def lu ñu warul def wala ñuy wax lu ñu warul wax waxuma ay rakk ak yooyu de papa dañ naan la lii nga waxee waroo ko waxee du noonu nii nga defee waroo ko defee te loolu la ñuy xaar tamit ci suñuy waajur ñun en tant que doom bu ñu defee lu ñu warul def ñu ni ñu li ngay def ni waroo koo def parce que tamit ñun ñëpp ci kër lañ jógee doguma la mais barki ah. démb bi nga ma laajee kan mooy sa meilleur promoteur mhm. pourtant boobu Mansour ba mi ngi toog mhm. mais dama la ne man sama akulaay taala su ma ko doon joxete Baye Ndiaye laa koy jox mais ah. Mansour loolu la wax kon tey ñun amuñu amuñu ñun duñ fi nekk di caresser kenn dans le sens du poil mais dëgg boo ko waree wax da koy wax mhm. mais vraiment acharnement bi man dama gis ne c'est abusé te te te te aussi